mu nar a doon combat bu neex a neex ndaxte nag coow li bëri woon na loolu si diggante ki nga xamante ni mooy Boy Niang doomu jégool bi ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 di doomu Double Less combat boobee sax nga xamante ni dafa bëri woon coow loolu si diggante ñaari mbër yooyu waaye nag kii di Gaston production jamono ji leeral lépp ñaar ñëpp dañoo jàppoon ni ki nga xamante ni mooy Boy Niang amul benn yoon niveau pour ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro waaye nag ba Balla ki nga xamante ni mooy Bombardier noppi rek ñu bëri dañ ne cim kii di Balla Gaye numéro 2 bu ñu xamoon bu njëkk ak léegi du benn kon nag moom ak Boy Niang combat rek boo xamante ni combat bu amateur yëpp di xaar la ndaxte kii di Boy Niang mooy xale te dafa yàkkamti euh, dem si li nga xamante ni muy euh, cours des grands naam sax ñaari examen yu mu doon def rek mujjul euh, jàll waaye nag nañu jàpp ni kenn daanu ko si dañ ko daan par décision arbitrale mu doon loo xamante ni atolo boo xamante ni moom Boy Niang moom rek la am ngir mën a jàmmarloo kii di boobu rek dina nar a métti si ki nga xamante ni mooy euh, Boy Niang euh, ginnaaw ba mu ñàkkee si kanamu euh, Tapha Tine ak lante de Guiers kii di Balla Gaye numéro 2 dafa nar a ñëw rek corriger wala sax Boy Niang rek moo nar a jëw ñëw rek de ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 bërikat la. te nag Boy Niang saa yu bëri bërikat rek dafay euh, am li nga xamante ni mooy euh, ndam ay action da si am nee na nag ñaar ñee bu mujjee bëri dañoo mujjantee seen bopp ba mujjee am li nga xamante ni euh, mooy match nul wala sax victoire par décision arbitrale waaye bii yoon comme Balla Gaye bërikat la dinañ gis beneen xarkaru kanam bu Boy Niang ginnaaw bu mu daanee ki nga xamante ni mooy Sa mu doon loo xamante ni moo dox si digganteem moom ak bala Gaye numéro 2 kon nag Balla Gaye numéro 2 ak kii di Boy Niang boo koy jàppale ni kii di Gaston Production émission leeral na lépp nee na combat boobee rek du am sax atub 2022 waaye euh, dina laa lekk nga xamante ni mooy euh, Gris Bordeaux si mois de si mois de août rek lay doon atub 2022 mu nar a doon combat yoo xamante ni combat choc ki nga xamante ni mooy euh, le lion de Guédiawaye waaye nag combat bi nga xamante ni moom la amateur yëpp di xaar mooy diggante Balla Gaye numéro 2 ak kooku di Boy Niang ndax combat boobu rek dafa bëri woon li nga xamante ni mooy ay coow yu si lal waaye naka kii di Boy Niang numéro 2 na jàpp ni am na combat ndaxte day bëre li nga xamante ni euh, mooy euh, examen bu mu war a defa pour jàll waaye nag dina bëre papaam ndax papaam génnoon na rek ne kii di euh, Boy Niang bu ñu léeg wala sax bu amee 5 minutes ak Balla Gaye numéro de yàlla na Balla Gaye numéro 2 jël ndam li kon combat boobu mboq amateur yi mu nar a doon combat bu nar a metti diggante bala Gaye numéro de a Boy